Ibrahima sa fay ñu ngi lay nuyu. yow yaa jiite appel di kuréel gi jaboote euh, éditeur ak professionnel de la presse en ligne alors euh, ñuy waxtaanee tey euh, lii dal ci kaw taskatu xibaar yépp mënees na kaa waxee noonu ñi ci gën a fës nag di waa Sen TV ak Walf TV nga xam ni CNRA dafa yëkkati woon ay dànqaafu jëme ci ñoom mujjee kaa dëggal te mooy dagg seenug signal loola yow appel loo ci wax yow mi ko jiite. xanaa di ñaawlu jëfu CNRA boobu noonu et yaakaarul ñu woon ne Sénégal jamono bi ñu toll nii euh, couper signal wala tëj organe de presse dina ci am et donc recul démocratique bu doy waar la et CNRA jamono jii nii mën nañ ko tenir responsable maanaam euh, li nga xam te ne moo xew jamono ji ci dëkk bi ci këru yëglekaay yi ndaxte euh, tëj bi mu tëj. Walfadjri ak Sen TV dafa merloo manifestation yi moo tax ñu dem di attaqué yenn këru yëglekaay xibaar yi mel ni RFM ak Le Soleil hmm. waaye amul lenn ci àdduna bu mën a justifier attaque euh, bu ñuy def contre les médias wala contre n'importe quelle institution ci dëkk bi ndaxte aussi euh, ku ci nekk am nga liberté manifester waaye aussi war nga xalaat ne aussi it nit ñi war nañu mën def seen liggéey war nañu mën a dox seen i soxla comme ni mu waree. Hmm. ba tax na nag en fait euh, ñun li CNRA def nii ñu ngi koy topp euh, di ci waxtaan ak këru yëglekaay xibaar yi nga xam ci ne euh, ñoom la ñu touché ñu ngi xool aussi lépp loo xam te war nañ ko def ak ñoom dinañ ko def ba nga xam ci ne en tout cas bu jaree ñu topp CNRA ci yoon. dañ ko topp ci yoon te it organisation internationale yi nga xamante ne ñi ngi fi mu di Reporters sans frontières mu di comité de protection des journalistes di article di ñeneen ak ñeneen vraiment euh, du tey balaa yàgg en tout cas dañuy gis seen communiqué pour ñaawlu mbir mi. Mm. donc juste pour wax que ne maanaam mbir mi jéggi na frontière u Sénégal yi euh, mi ngi ci àdduna bi yëpp ñëpp ngi ci wax ñëpp a ngi ci. ñëpp a ngi koy ñaaw. Hmm. est-ce que CNRA bi mu génnee communiqué boobu di dànqaafu yéen kuréelu taskatu xibaar yi euh, wax ngeen ci ak euh, ñoom rawatina ak njiit li Babacar Diagne. Euh, comme communiqué comme ñu koy def waxut ak ñun. Hmm. communiqué la def ay kay sur la place publique ñu ne def nañ communiqué teg ko sur la place publique pour xamal que ne carrément bu ko defee kat lu ko ci fekk naka naka na naka nangu te it aussi it comme ni ma wax léegi nii duñ ko ci bàyyi noonu def na ko donc ñun li nga xam ne yoon may nañ ko dinañ ko def parce que boo xoolee code de la presse wala nga xool loi yi nga xam ci ne ëmb na presse wala mi ngi wax ci affaire régulation yi amul benn boo xam ci ne maanaam wax na euh, jox na sañ-sañ CNRA mu jóg dem tëj euh, wal fajiri wala tëj seen kii euh, seen TV te suivre benn procédure boo xam c'est élémentaire. mooy lan élémentaire mooy maanaam nga def mise en demeure boo jóge ci mise en demeure euh, nga def euh, avertissement jóge ci avertissement doog a xalaat euh, kii daal di leen di xupp boo jóge ci xupp bi daal daal doog a tëj parce que maanaam dafa am lu ñuy wax maanaam cascade de sanction loolu noonu yëpp CNRA def ci dara donc dafa yónnee communiqué ca lendemain ba mu daal dañoo coupé et même bu ñu xoolee charte code bi mm. sañ-sañ bi nga xam ne moom loom la a jóg def ko moom du du kiiwam euh, du ay prérogative am du ay prérogative te beneen bi mooy que ne maanaam euh, CNRA ci boppam dafa caduc seeneera ci boppam en fait euh, code bi di 2017 bu juillet 2017 bi daf ko daal di effacé taxawal beneen organe de régulation bu bees waaye nag ñi jiite actuellement CNRA pour ñoom kii boobu noonu bu ñëwee rek ñoom dañuy ñàkk seen liggéey. ba tax na jamono jii nii ñu ngi def lépp en tout cas pour euh, mën a desandi ñu nekk pour mën a en fait euh, neexal nguur gi. Mhm. léegi nag loola li mu jur wax nga ko sànq mooy ñu dal ci kaw yenn euh, këru liggéeyukaay yu mel ni suñu mbokk RFM ak TFM ni ki noonu le soleil ñooña am na manifestant yu jàpp ne xëy na dañuy wax lu arrangé nguur gi nguur gi itam génneeb communiquer dànqaafu sax ñi mu gis ne euh, dañuy euh, am fu nuy far ak lu nuy wax ak lu nuy wax mu ñàkk arrangé ñii wala ñële est-ce que gis nga ñàkk yemale ci liggéeyu taskatu xibaar yi waa ñàkk yemale mën na am ndaxte mbir mi Euh, euh, ñun ay nit kese la ñu. Mm-hmm. et matulement dañu am dañ dañu matadi. et bu amee euh, am na yoon yoo xam ne wañ ko mën a jaare pour waxtaanee ko xool rapidement naka la ñuy def pour pour pour pour dindi ko élection mooy gën garaaw trop et pourtant. CNRA dafay liggéey ak yeneen kuréel yi. Mm-hmm. def lu ñuy wax co-régulation fu problème amee wala fu ay dérive commencé am ñu woote ci saa si lijjanti ko mu sotti. Mm-hmm. e euh, làmbaay kii benn caaf caaf du xam euh, bal du tàkk dara du am. et donc tey jii nii pour lan mu jóg rek xëy rek dem ne dafay tëj euh, seen TV ak yooyu noonu et boo xoolee tey jii nii mooy kër yëgalikaay yi ñuy yàq muy di RFM di Le Soleil mais monsieur mënoon na fa am. Mm-hmm. musiba mënoon na fa am et donc moo tax nag jamono ji il faut que ni ñi ñëwaat à la raison ñu xam ne en fait dëkk bi ñoo xamoon bu ñu ko taalee ñun ñëppay ñàkk. d'accord lan ngay digal journaliste yi nag ci fii réew mi toll rawatina ak ci wàllu liggéey bi ñuy wax ne ay manipulation day am yenn saay ci yenn xibaar yu ñuy joxe. journaliste yi moom il faut que ñu def attention parce que gis nañ li commencé xew nii ak. Euh, démb euh, RFM ak Le Soleil ak journaliste bu euh, Sud Quotidien bi nga xam ne arrêté woon nañ ko police point yooyu ñoo ko jàppoon yóbbu ko Grand Dakar mm-hmm. ba finalement euh, bi ñu mujj waxtaan ba ñu bàyyi ko et donc moo tax journaliste yi dañu am sañ-sañu couvrir lii di xew ndaxte dañu war a jox population bi information bi c'est un droit constitutionnel et il y a aussi des libertés fondamentales pour les journalistes mais foog ñu def attention moytu parce que aussi it benn information jarul bakkan et ñu bu def benn say àndandoo et moytu di def ay échappée solitaire wala di wuti scoop ci biir ay émeute amul lu fi jar mm. vraiment il faut que ñu def attention te it képp koo mën a jël sa budget nga langoo ko mu leer ñëpp xam ne kii kat presse la fii la bokk nga def ko nga def ko parce que gilet boo taxee gilet sax jamono jii nii ay manifestants nañ la attaqué e donc nekk nii ji yaakaar naa budget bi rek mooñ ci mën a sauver ndax boo génnee ci manifestation bi dugalal poche hmm. dox comme citoyen yëpp dem kon sol gilet bi wóorul ah sol gilet bi de pour man Hmm. wóorul wala boo jógee ci manifestation bi automatiquement nga lemaat ko dugal sa saak. Hmm. ndaxte li garaaw ci gilet bi boo isolé woo ci manifestant yi mën nañ ne ah kii kër journaliste mën nañ kii fii la bokk wala fafale la bokk hmm. comme jamono jii ni ñi ngi attaqué ay organe de presse ku yebu rek moo ci def attention ci bëccëgu tey bi itam ñu ngi njort yeneen cong ndax am na list bu nuy rumandaat ne yeneen këru tasukaay xibaar la yu nu nar a song euh, ci loolu est-ce que jël ngeen ay matukaay waaw démb bi ñu congee kii yooyu noonu organes yooyu noonu ñu ngi doon waxtaan ak ministère de l'intérieur et donc bi ñuy waxtaanee ak moom moo tax rapidement ñu dem euh, intervenir yóbbu fa ay agent de sécurité. Hmm. ay police ak gendarme. et yaakaar naa ne ñoom ñu ngi bàyyi xel situation bi e fu ñu signalé ne rek am na fa jafe-jafe ñoom dañ def li ci war pour mën a sécuriser hmm. entreprise de presse tey looy digal taskatu xibaar yi ci taxawaay wi ñu war a am euh, ci kanamu li ñu mën a tuddee danger mën a dal seen kaw. ñu moytu rek nekk benn say am solidarité seen biir hmm. et surtout aussi bañ di jox micro hmm. yenn nit ñi yenn samba booy ñi di saaga wala di wax wax joo xam ne mën na gën a yokk ci xar mi karaw. Hmm. c'est surtout ça. yaa ngi doon wax sànq itam télétravail. Euh, waaw télétravail aussi am na ci solo ndaxte képp koo xam te ne mënta dem mënul dem fa muy liggéeyee mu toog këram def li ñuy wax télétravail parce que mbas mi kat euh, andi na fi jàqare ak tiis waaye tax na ñu jàng li ñuy wax télétravail. Mm-hmm. ba ku nekk war na mën a toog këram. e mën a def liggéeyam ca ñi nga xam ne ñooy dem sur le terrain nag ñoo ñuy def attention mm-hmm. waaye ñi nga xam le personnel non essentiel nga xam te ne vraiment mun nañ bañ a yegg ca rédaction ñu jéem a euh, ñu jéem a euh, vraiment def télétravail. Mm-hmm. ñu jeexal ak manipulation bi sànq maa ngi la koy laaj euh, ñu ngi itam wax ni yenn saa ñu joxe information yoo xam ne dëgguwul lan la war a doon taxawaayu taskatu xibaar bi ci yenn xibaar yi nga xam ne daf koy jot. xam pour information yooyu nga xam te ne dëgguwul. Eh, yaakaar naa ne CNRA kii lii di CORED mi ngi toog di déglu lii xew ci média yi et média yi aussi dañu war def attention surtout bañ a publier wala bañ a diffuser benn information boo xam te rek recoupé wuñ ko vérifié wuñ ko ba mu leer crédible ndaxte jamono ji day bëri manipulation de bëri ay nit yoo xam ne ay marchand d'illusion lañ dañuy jéem dugal euh, dëkk dëkk bi ci ci ci ci dëkk a suuxal dëkk bi wala di jéem en tout cas yàq xel yi ba tax na ñooñu waruñu leen jox micro waruñu leen a euh, vraiment yaatal. ci mm-hmm. euh, ci presse mm-hmm. donc fi mu nekk nii rédaction yëpp il faut que maanaam buñu ñu daw di def course au scoop nañu xaar ba information bi leer ñu doog ko publier. Mm-hmm. parce que kat jomb nañu wala war nañu jomb. Euh, dëkk bi am ay jafe-jafe ñu ne kat benn site wala benn journal moo ko daal di génne lu jara daw loolu lu jar a moytu la. Mhm. jërëjëf Ibrahima Lissa Faye ñu ngi lay gërëm amoon mbégte dalal la ci matinalu mi FM tey. maa lay sant bu baax Fatou.